bëccëgu tey yamook jeudi 29 juillet 2021 xale yi nga xamante ni ñoo toll si jàngum euh, digg doom bi tey dañuy amal li nga xamante ni euh, moom mooy bac bi élèves yi nag euh, ñu ngi toll si 153 820 centres yi principaux ak secondaires yi ñu ngi toll si 436 jury yi ñu ngi toll si 470 épreuves yi nag tey li nga xamante ni moom mooy filo ak mathématique bi la ñuy ubbee waaye ñun dakaar Net dañoo dem fi nga xamante ni moom mooy lycée Limamou Laye ndax xam ngeen ni lycée Limamou Laye bokk na ci lycée yi nga xamante ni mën nañ ko lii see d'excellence ndax résultat yu am solo yi nga xamante ni daf koy génnee bi ñu duggee euh, ci biir li nga xamante ni moom mooy établissement bi ñu ngi janook benn waay xale bu ndaw toll si ñaar fukki at benn tudd Abdou moom épreuve yi nga xamante ni def na ko ba pare daal di génn taxaw moom euh, lii la ci xalaat. file filo bi moom bon lépp lu jàng moom loolu lañ fa gisaat quoi ci sujet si domaine 1 beeg yooyu noonu ça c'est abordable quoi selon moi commentaire bi aussi tamit liberté lañ joxe te liberté bi moom macha allah gars yi jàng ko comme nu mu waree daal en tout cas daal pour moom ça va quoi moom. honnêtement. docteur Moussa Gueye président jury 1481 lycée Limamou Laye moom jàpp na ni organisation bi jaar na ci yoon amul benn problème boo xamante ni noté nañ ko bi ñu ko laajee ndax geste barrière yi euh, xale yi euh, daal di ñu ko respecté nee na dina jafe ci xale yi ndax euh, dafa tàng ndax naam ñi ngi takk masque yi waaye léeg xale yi ñu wàccee ko ndax sax ñoom dañ leen di comprendre ndax tàngaay bi te ñenn ñi dañuy am ay problème li nga xamante ni moom mooy noyyi muy asthmatique mu jàpp ci bëccëgu tey ni moom mooy épreuve yi nee na amul benn problème boo xamante ni daal di nañ ko ci noté bu weesoo benn xale boo xamante ni élève la moom dañu ko daal di dàq ndax da doon utiliser li nga xamante ni moom mooy portable maanaam dafa indaale woon euh, portable am euh, ci lycée bi xale bi nga xamante ni mi ngi tudd euh, junior moom tamit di ab élève moom jàpp na ni sujet yi lépp abordable na waaye gestes barrières yi nga xamante ni respecté wuñ ko moom moo ko metti ndax nee na fii gis na ni élèves yi ñi ngi dajaloo ñu déglu junior moom wax xalaatam ci mbir man ci li ma gis selon man ah selon man ci li ma gis on majeure partie respecté wuñu dara parce que vu que xoolal regroupement yi gars yi ñu ngi joxante loxo xam seerante loxo tout et tout et tout bon je dirais que respecté wuñu dara sauf que takk nañ mas mais li si des moom respecté wuñu dara mooy distance distance bu ngay wax ni affaire noonu yëpp parce que vu boo xoolee gars yi xam nga déjà dañoo regroupé wu donc la c'est pas normal te dañoo nekk si moment boo xam ne regroupement bi ko war parce que dañoo war a ànd xeex corona bi mu jógee suñu réew quoi donc tout est tout voilà. loolu mooy li nga xamante ni euh, giseen ngeen ko xale yaa ngi noonu di euh, demal ci li nga xamante ni moom mooy épreuve yi euh, mi ngi noonu ñu leen di ñaanal di leen souhaiter bon chance ñoom ñëpp waaye ki nga xamante ni moom mooy professeur Socé Ndiaye jiite li nga xamante ni moom mooy office di bac neena na section rattrapage bi maanaam élèves yi nga xamante ni dañoo war a dabu ñi nga xamante ni feebar daf leen dab muy corona bu seen i waajur indee ay kayit yu firnde ni loolu ñuy wax loolu nekk si ñoom moo am si ñoom dinañ amal li nga xamante ni moom mooy section rattrapage 4 octobre lay ñëw euh, bii di ñëw wéy leen di abonné seen site d'information bii di Dakar Net dara du leen rëcc ci réew mi